Ya yoni woon Muhammadul Makiyo. Ya Rasulallah. Ya bal Muhammadul Makiyo. Simbam bejerejef Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Seri sëriñ bi ñoo ngi ci turu mbolo mi nga xamne mom lañu andal muy ñi ñuy tuddé ay opérateur économique.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 نينا الحمد لله رب العالمين سيدنا احمد خامن والي ييب نينا كون لوم جي واخ موم لا جي ديف سير نينا غيناو بو جيتالي بوبام تي ليمي واخ دو دارا لودول ليغي بي سيرن توبا بي رك ليغي بي ناك تي سونو بير تي سونو بير تامبلي بونو غور غور لو تي سونو بوب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 li boromam bëgg rek moom rek la sëriñ bëgg li sunu borom bëgg ci jaamam moom la sëriñ bi bëgg ci ab taalibeem mooy woo yàlla rek la ca des lu mu ca mën a doon dañ ko war a bokk rek ndax lu yomb lay doon kenn ku ne ci noonu lay sa wërsëg yàlla noppi na ci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 ñàkk xam rek moo ci ne waaye bu ngeen ko xamee nee na ñàkk xam moo ci nekk noppale lool waaye bu ngeen ko xamee day noppi lool day gën a yomb li gën a yomb gën a a di ko gën a mën a jariñoo ngeen a a kaw sañ koo jariñoo nag loolu rek la naa ko bisimilah na ñëpp mi ngi mi ngi amiin amiin amiin amiin amiin amiin wax ñu tey jib xol la am nag may bokki taal bi ñu toog sëñ ma yaa suñ sekk waaye suba tara nee daal ko dos commerçant yi tudd nag may leen nag nañ ko amiin yaa yónni woon Muhammadul Makiyo yaa Rasulallah dellu yabal Muhammadul Makiyo si Bamba jërëjëf